asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin bokki M-Media Group Nourou Darayni bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante suñu Boroom subhanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallama noo ngi fas yi dikkaat ak ci sunu jataayu zaadu nisaa il muslimaati li nasihaati al muminina wal muminaati noo fekk mel ni jataay jataay yi nga xam ne moo paase noo ngi doon fàttali xadis boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ci jigéen jigéen bu jullee julli xam ne julli lu am am solo la jigéen ñi lu ñu ko war fonk lam te bari ci ñoom ñu ko sàggane lool sàggane julli am ci ñoo xam ne jàpp na ndax julli moom da ngay da ngay da ngay da rek door koo def waaye boo feexul nag leneen loo nekk moo gën moo gën julli am na ñenn am na ñenn ci ñoom loolu lañ jàpp wala am ñoo xam ne doo jàpp ne julli moom da ngay xaar ba doon mag rek boo doon boo mag moom nekk fa di julleeka yooyu moom sax day gàttal sa fan am na ñenn ci jigéen ñi wala ñenn ci nit ñoo xam ne loolu lañu jàpp comme ni nga xamee ne noonu lañuy wax ne jigéen ju ndaw bu dee muuru di sàmm aw yaramam loolu gaaf lay doon ci loolu gaaf la gaaf la ci ñoom waaw loolu am na lenn ci jigéen ñi ñu koy wax mu doon loo xam ne wax ju doy waar la wax ju réer la yoo xam ne ju tubranke la ju mat di moytandiku nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne jigéen bu jullee julli juróomam woor weeru kooram rawat na weeru koor tam di ko sàmmonte ndax di woo sa weeru koor sàmmonte ak koor yi ak lépp loo ca xam ne bor la ci koor gi nga fay ko ndax comme suñ borom moo dogal ci lenn ci jigéen ñi mënoo woor weer ba mu jeex fokk ñu am ci ay fan yu na dog fan yooyu ngi fexe di sàmmonte di ko fay ta bañ koy sàggane bañ di wax ni nga xam ne noonu la ñenn ñi di wax ne man duma fayantoo ak suñ borom subhanahu wa taala wax ne boo amee fan yoo xam ne wóoroo na nga bàyyi fa'idan min ayamin uxar na nga bàyyi ba yeneen fan nga fay ko ah, wax la loolu nga ne duma fay ko suñu loolu ak la ak ñàkk xam la waaye tam bu jullee julli juróom war weer kooram joxe asaka génne asaka am na ñenn ci jigéen ñoo xam ne jàpp ne lu nu bari la bari la bari la asaka moom jigéen waru koy génn ba tax na duñ ko sax suurale te loolu waxoon nañ ci jata yu paase bokk na ci musibay àddina manul zakat da nga génne asaka te yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne wa maa halaka min maalin illaa wa asaka joo xam ne day jikki jikki ba yàgg mu sànk alkandi dugg ca benn ñu sàcc ko wala ñu agressé la wala mu lakk wala leneen alkandi dugg ca lu dul ni nag dafa euh, danga caa bañ a génne asaka loolu tam li alquran di wax ne wattaqu fitnatan laa tusiibanna lazina zalamu minkum xaassatan kon loolu daf ci feeñ daf ci mat yi bàyyi ndax mën ngaa nekk ko xam ne dafa am alalam sàmmonte ca say bu waxtu génne asaka jotee say bu waxtu génne asaka jotee mu génne ca asaka mu génne ca asaka ja am kum langal koo xam ne du génne benn yoon asaka te it mën na ko war na koo génne waaye nag du ko génne ndax nay moo tax ak ñàkk xam ak ñàkk ragal suñu borom subhanahu wa taala ak ñàkk koo sant waaye kooku bu suñ moom bu suñ moom di dikk di indi alkande ca alalam jooje man naa sax commencé ca ki nga xam ne moo moo moo sàmmonteeg di génn asaka man naa commencé ca moom ndax loolu wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xaasatan ndax la koy firndeel mooy rek mooy waalamu eh, waalamu anna allaha shadidul iqab shadidul iqab mooy ki nga xam ne dafa def bakkaar wala mu def ak mooy ba suñ di ko mbugal mbugal ma tas ba àgg ci ñeneen ñu laal ñoo xam ne bokkuñu sax li wolof di wax ne sabab du ci bopp boroom euh, sabab du yem ci bopp boroom mooy loolu alquran wax kon bariwaane koo nekkal muy génne asaka na mu ware nga lànga keneen ko xam du génne asaka ni mu ware suñ boroom di indi ci moom mbugal far mbugal ma sax jaare ca ki nga xam ne jaare ca ki nga xam ne moom mooy génne asaka loolu nag suñ boroom dogal suñ boroom moomel kon loolu tax moo génne asaka saay bu jotee rek jullit ñi kenn ku ci nekkoon na koy soññ sa morom ña koy ña koy génne ak ñi koy génn ndax euh, fitna bu dikkee du yem ci boppa borom dafa amoon ci jamono yi jamono yu yonentu Yàlla Muusa yonentu Yàlla Muusa laxas benn xare bëgg a euh, ak noonam bu màgg boobee di na léegi Firawna dem ci génn góor di ko ñaanloo ne dama bëgg damay daje ak Muusa di xare moom te bëgg naa nga ñaanal ma ma gañe ko nitu yàlla ga dina bëgg koo ñaanal ba yàgg am digg yi moom ma bu yëkkati kàddoom mu ne ko ne ko bàyyi ma boobu kat daf maa ne dama nooy nekk nitu yàlla di ñaanal noonu yàlla muy xeex ak yónnente yàlla ba nar koo gañe nee na mën a ne ko kon du ma la mën a ñaanal waaye nag dinaa wax pexe yi moo xam ne boo ko defee boo demee mën ngaa gañe xare ba mu ne ko pexe ma mu su ngeen demee ba xeex bi tàng waa kër Moussa ak waa kër Firawna ba xeex bi tàng xeex bi tàng ne ko na am kenn ci saw ñoñ koo xam ne jigéen lay doon mu summiku ba set jaxasoo ak waa kër yonent Yàlla dana am kenn ci ñoom koo xam ne dana am càgganteeg euh, def bàkkaar ak ndaw soosu waaye bàkkaar bu wéy nag ca ngi jaare ba gañe ban demee ba xeex ba tàng am ci waa kër firawna suñu ko dugg ci waa kër Muusa alayhi salaatu wasalaam ala am ñenn ci waa kër Muusa alayhi salaam def bàkkaar ak ndaw soose nee na bàkkaar boobu ñu def tax ñu rey lu bari lool ci waa kër Muusa Muusa laaj borom tabaaraka wa taala ne ko lu waral lii suñu borom subhanahu wa taala ko bu bi sàngam ne sàngam na lekk boo lekkee ba suur nga dem ci garab sàngam nga tëdd fa te bul baxasu bi mu lekkee ba suur dem ci garab ga tëdd tëdd tëddi nelaw bañ raxasu am lu dooni melentaan dikk sam loxo bi di ko matt di lekk ñam bi ba yàgg am benn ci melentaan bi matt yonent yàlla Moussa mu biiñ bind rek àddara ay loxo ba xaaral lu dooni melentaan suñu ne ko Moussa lii benn melentaan ci rek moo la moo la ci lii lépp Moussa ne ko sama doole ci ñoom moo xoj moo sama doole moo xoj ci ñoom moo tax benn ci ñoom mattee rek ma raay raay lu doon lu doon melentaan suñu borom ne ko mi noonu sama doole ci yéen moo ci xajut moo tax bi ma benn bi ma kenn moyee ci yéen. Eh, sama mbugal di ñëw làmbaale mboolem lu bari ci yéen loolu mooy wataqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasatan kon jigéen ji kon ki nga xam ne dafa war di day génne asaka bu àggee ci waxtu génne asaka na ko génne ki mu làngal taman ko génne na ko fàttali ko na ko génne ndax ko génnewut bu alkani di dugg ca as ca àllam man na laa laawaale ragal leen fitna ndax fitna du yem ci boppam boroomam kon jigéen bu jullee julli juróomam woor weeru kooram natt asakaam sàmm boppam nee na bu faatoo si mborom ko juróom-ñetti ci aljana bu ci soof moo daal di tàbbi kon jigéen ñi war naa góorgóorlu ci julli góorgóorlu ci asaka góorgóorlu ci añ màkk su ko mënee waaye sàmm boppam waaye góorgóorlu ci borom këramam si borom subhanahu wa may ko aljana ju ko soof waaye itam ku góor ki tam waxoon na ne bokk na ci góor booy wuuti soxna na nga wuut koo xam ne borom diine la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne des na takk jigéen ci ñent mooy alal des na ko takk ci alal des na ko takk ci taar des ko takk ci ab juddu waaye nag ba ci gën mooy nga takk ko ngir diine fal rabbi zaati diin tarifat yadaaka ñëwoon nañ ci lu yaatu ci jataay yi passé loolu tam nekk lu mat a bàyyi xel ndax boo takkee borom diine mooy doon jigéen ju baax ni Sëriñ Tuubaa waxe wa zawjatan saalihatan tu'inu ala tuqa wal birri ya mu'inu soxna su baax soo ne moo lay dimbali ci sa wàllu diine la dimbali sa wàllu addina ba nga mën a jaam su ko nam la soobe moo tax mu ne al mar'a loolu moo mar'atu saaliha jigéen ji mooy mooy marchandise gën a seer ci àdduna kon wa zawjatan salihatan tu'inu ala tuqa wa dirri ya mu'in jataay bi parce que tam fàttali woon fàttalente woon nanu ak ci di seeti ko tawat soo amee sa mbokkum jullit moo xam ne suñu dafa dogal mu tawat nga dem seeti ko waaye bañ a bàyyi ba mu faatu suñu doom jël ak ruuxam nga door di def délégation dajale seeni alal dem ne da koy joxe ak na tudde ndax jamono moo toll foo xamante ni bii xam ne def te yàlla tax jafe na boo ki faatu nga mën koo dem seeti la gën mooy nga dem seeti ko ci bi muy dund su fekkee ne am nga loo ko mën a dimbalee ci wàllu adanaas ak ko nuru wala nga defal ko wala ko nga ñaanal ko bàyyi ba mu faatu ngeen ay xaalis yu bari dem ne leen koy jox nangam ak nangam amaan sax da ngeen dajale joxe ko di bi alayhi salaatu wasalaam seeti ku feebar ci jamono yi mu feebaree su fekkee man ngeen koo dimbali ci ordonnance ngeen dimbali ko ca su fekkee mën ngeen koo dimbali ci ñaanal ko ngeen dimbali ko wala ngeen dimbali ko ci jox ko tegtal wala dalal am xelam ngeen def ko comme na ngeen seeti ku feebar waaye bokk na ci itam ngeen ñoŋal seen dund gi ci moytandiku fo ak caaxaan ak indesit waaye ngeen Euh, wecceeku ci tudd yàlla tabaraka wa taala ak di tasbiix di sabal suñu borom subhanahu wa taala kalimataani xafifataani fi lisaan saqilaani fi misaan xabibataani ila rahman yonent bi ñaari baata yoo xam ne la lool ci làmmiñ mooy aw làmmiñ tudd ko yomb na lool waaye diis lool ëllëg yow mën xiyam bu ñuy peesi jëf ñi waaye suñu borom tabaraka wa taala sopp ko lool mooy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kon moo tax mu ne di wa tasbihi wa tahlili waaye ngeen di julli guddi julli guddi ñëwoon nañ ci ak namu ak lan ci waxan daan mën na gën a yaatu sax waaye di nuyu ak la ci aju gën a mën a gën yaatu waaye tam Euh, farlu ci diggante jullit ndax bokkam ci li indi jàmm diggante ñaari jullit ndax ñaari jullit yi nga xam ne doo xëy bokk fa mu nekk ñu xëy nuyonte jàmm day nekk seen diggante du ca nekk ci bu xëyee bañ a nuyonte bu xëyee bañ a nuyonte jàmm mën na ne jàmm du nekk seen diggante waaye bu ñu xëyee saafoonte nuyonte jàmm jay nekk seen diggante du ca mën a nekk mukk bu nuyonte amul seen diggante loolu tam Euh, ñëwoon nañ ci ci jataay bii nga xam ne moo paasa wala takunu mutamawitiina wala takunu mutaaibina wala tuqaatilu wala tudaabiru wala tubaaxidu wala tunaafiru wala taa wala taanin wala maddaxiin bokk na ci li nga xam ne lu am am solo ci ay jullit euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam indi na ko ci xadis wala nga ne wax na wax na ko ci eh, ñëw na ci xadis yonent bi alayhi salaatu ay jullit bu ñu nekkee nanu yéenente kenn ku ci nekk la nga sa moroom nga yéene ko la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom ndax laa yumin ahadukum xata yuhibbu aqihi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yéen koo xam ne dana gëm ngëmum dana wér lu la mu yéene eh, boppam daf ko yéene moroomam kon ay jullit bu nekkee bu ne bu ñuy rayante bu ñuy fexeelante kenn ku ci nekk di fexeel sa moroom fexeel mu fexe mu koy dellu ginnaaw ak fexe mu lay jimali sa kanam jëm jëm sa nga fexe jëm ca kanam sa mbokkum jullit jëm ginnaaw loolu du melokaanu jullit waaye bokk na ci bu leen di ay wëlante bu kenn ci yéen amee ay ayib sax wala mu gis ayib kenn bu kenn ci yéen xamee ay moroomam wala mu gis ko mu koy waxal mu koy jëf ngir doy nag ko nëbbal te xool ci ay ayibam Sëriñ Tuubaa nee na wadduma ala nasri aybi nafsika waddawaahi watub li xaw fi rabbika na ngay sax di xool ci say ayib te bañ di di ngir jëm si mbo suñ borom subhanahu wa bañ di xool ayibi keneen bari waa ne ku xëy suba mu ngoon jot nekk ci ayibi keneen te ëpp koy ayib lool ëpp koy ayib fuuf kon del sax di xool say ayib di fexey nooy tuubi ba suñ borom ayib yooyee walif ngay sëgg ci ayibi jàmbur di ko tudd wa duma ala tawbati fi ala nasri ayibi nafsika wa dawahi wa tub li xawfi rabbika boo dee xool sa ayib rek di xool mooy saafara sa ayib yooye dana la doy sëkk sëkk sëkk walif xool ayibi keneen waaye wala tuxaatilu wala tudaabiru bu leen xeex bu leen rayante waaye bu leen dëddunte bu leen wanante ginnaaw wanante ginnaaw ñaari jullit dunu wanante ginnaaw ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne yellul ci benn jullit mu mere mbokkum jullitam lu paase ñetti fan na mer nag mënta ñàkk waaye bu mu bari ba paase ñetti fan yellul ci benn jullit muy tong mbokkam jullitam di ko mere di ko gàddaay bañ koo faale bañ koo nuyu bañ koo lay lu weesu ñetti fan waaye wala tubaaxidu wala tunaafiru bu leen bu leen leen jëwante bu jëwante ndax alquran wax ne wala yaxtab baadukum baadan ay yuhibbu ahadukum ay yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuuhu bu kenn ci yéen jëw sa morom sa mbokkum jullitam ndax kenn ci yen bëgg na lekk yàqu moroomam loolu tontam mooy déedéet te jëw sa mbokkum jullit dafa mel ni jiw dafa mel ni lekk meddum mbaam comme ni mu ñëween ci waxtaan wi passé xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa xiibatul muslim fi xawlil xabiir aqbahu min aklika jifatal xamir jëw sa mbokkum jullit nee lekk moo gën a ñaaw moo gën bon lekk meddum mbaam kon jëw lu ñaaw la lu bon la nga di ko def ab jullit euh, jëw nag yomb na lool bari lool tam nit ñi di ko def te duñ ko bàyyi xel bari lool nit ñi ko def te duñ ko bàyyi xel te jëw waxoon nañ ci waxtaan yi passé ni njaaloo xaraame jëw moo ko gën a ndax benn jëw day wecc fanweeri njaaloo ak ñett ki nit ki njaaloo fanweer ak ñett ki jëw benn jëw rek bàkkaaram bàkkaaram ëpp ko kon jëw te nit te nit ñi duñ ci bàyyi xel ci jëw bi euh, mu doon lu lu mat a bàyyi xel te kii jëw itam ka toog ak kito di ko déglu ak doonte te ko waaye lam lay wax yaa ngi koy déglu mu lay soxal yi na ko bokk yi na bokk bàkkaar ba wala tasinu ana zan wala xiba yaxtasil xaali fi musiba wa fi lxadisi sallallahu alayhi wa sallam inna allasi qad yastamiu xiba musharikul xaali fi ma yasmaa kii jëw ak ki toog di ko déglu ñoom ñooyam ca bàkkaar ba rek kon loolu moo nekkoon suñu jotaay tey insha allah taala di ñaan suñu borom defal lu ak diggu ak toog ci war Seexna Xadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu حفظ الفاروق سيدنا ففي مساياه لا يرتاب طيار وعوى المتم ذوي الإسلام يوم عدا niimat bi kaana lil islaami izhaaru wallaahu farraqa bil faaruqi sayyidina al haqq min baatilin abdatu fujjaaru